jaar ak mhm. ñeneen ñu ni mel nit koo mhm. xamante ne nëbbatuwul na bu maire buy génn këram di namm ay tànkam di dox di jëmale mairie ba kooku nëbbatuwoo kooku bëgg nga sa lépp leer koo xamante ne booy dawal yow say vitre sax na koo ragal a yéegal ndax ragal ñu ne moom kat diw dafa changé mhm. wala coppeeku am na ci moom kon kooku fu ñu mënti nekk tous les jours que Dieu fait day des ci sunu ay xol day des ci sunu ay xalaat mu jege nag ak mu sori waaw kon c'est pas quelque chose non non balaa ngay dem dañuy dem sport dem soo nga daal di dem ci revue du titre dañuy mooy damay def étirement waaw dañuy sport dañuy sport dañuy sport. <laughs> dañuy sport mooy damay def yi ay mouvement. man kii dama ko bëgg. wala damay def ay étirement musculaire. waaw waaw la Jackie Chan. et li ma daan jàngal laa tari ay tuus ñebe. waaw tuus ñebe yooyu dafa baax Paasan war na maa laaj war na maa laaj lan moo lan moo. lan moo nekk ci sa compte bancaire. ni ma tutoyé